fay ziare seen wàccuwaay bu baax maa ngi tudd Abdallah Kouyaté Cheikh sama mag la papam ak sama pap ñoo bokk nekk baay. macha allah euh, ginnaaw bu ñu la nuyoo di la mastaw ci bis bi nga xamante ne nax rek tiis ni ki tey euh, ani yan kàddu seede nga yëkkati ci sa waajur bi nga xamante ne daal dina fi génn ni ki démb. waaw ah, ku fi génn moom ku baax la moom yaay ku sori si man sama xarit la woon daa doon partage lu nekk moo tax démb bu ma annoncé décès bi souvent damaa damaa bouleversé parce dafa métti quoi dafa métti mënu ma xoon gëm nit dinga gis nga fan du mës a génn ndax yéen ñaar ni meloon mais moom lu mu dem nii bi laa daf ma métti daf ma naqar. ani ban moment lañ la ko ak fan la la fekkoon. moment ma maa woon suñu école. après si laa taal sama téléphone gis gars yi dugal statut yooyu noonu rek après si laa dawee ñëw fii nii moment boobu na laa yëgeen affaire nag. dafa feebaroon wala tawat bi lu yàggoon ci moom ndax dañoo jot information ñu ne euh, ñi naan dafa feebaroon ñi naan loo xamante ne feer bu yàggul ndax mënoon ñu mënoon ay leeral. waaw moom nag dafa feebaroon feer bu yàgg nag. feer bu yàggoon na si moom loolu mais la dernière fois bi mooy dernière fois muy muy jóge hôpital après si wàññeekoo quoi si bi. xamoon ban genre tawat moo ko moo ko moo ko daaneloon. ah moom ah moom xaw ma ko moom ah, feebaroon daal parce que moom tamit militaire la woon yaa xam naa looloo ko mujjee jàpp rek moo tax après day sonn quoi mais jàmbaar la jàmbaar bu mag la. sànq di ma dégg sa kàddu nga ne da ngeen a miinante woon da ngeen ko ay complice euh, ndax mënoon nga ñëw sa diggante yow moom añ nan ngeen naan dundee. Hmm, parce que moom moom man mun naa ne maa ngi football mais moom moo tax ma gën gëm football bi parce que may gën a nekk xale moom njëkk jënal ay crampon jox ma na ma dama dama nga football yi maam si moom daal moom mun naa ne daal moo tax ma nekk joueur daal. loolu kàddu ngeen mujjee échangeante yow ak moom yoo xamante ne tey ji boo koy fàttaliku amaana dina sori si yow ah mooy bu may bu may mujjee dem gàllam rek fee waxaam si la waxtaanee après mais instant yi fekk feebaroon feebaroon gën na ko kii quoi mënul woon sax presque wax bu baax si laa doon waxtaan moom mën naa ma del góorgóorlu si àdduna na ko waaw incha allah papa di ma dégg fu sori euh, tey jii nekkatu fi ani boo fàttalikoo kàddu yooyu nan la lay def ah dina métti moom métti ma rek loolu la ma mun def moom sa diggante digganteeg euh, Cheikhou Kouyaté ndax bi mu jógee euh, Côte d'Ivoire ak léegi yàgg moom jot ngeen waxtaan ak yooyu noonu. non instant moom jotaguñu waxtaan moom parce que liggéey fii nii man que nekk ma fa woon sax maa ngi soog a ñëw ñëwoon fee di indi saisi affaire yooyu noonu mais xam naa après ne man moom nañ jot waxtaan. incha allah parce que moom tamit day waxtaan ñun lu bëri à ah, tout le temps moom dañuy conseillé. tey jii nii euh, daanaka dina dégg li nga xamante ne wala seetaan vidéo bi tey boo ko doon jox conseil malgré sax moo la gën a féetee kaw mais dañu ne dëgg puso bu réer la mag dina ko far xale dina ko far an yan conseil nga koy jox. kon Sekaate ah moom dama dama xëy dama xëy naan mu gën a góorgóorlu rek parce que moom dèjà ñun fier nañ si dañ si fier lool bu duggee bu duggee moom bu duggee si terrain bi def jom moom moom loolu dama see kontaan moom dama damaa kontaan si moom parce que moom lu lu muy def rek da see àndal fula dañuy woo duñu conseil di waxul ñun luy dugg suñu bopp. tout le temps loolu moom dama see kontaan moom. sànq tamit li ma dégg nga ne yow tamit li nga xamante ne moom moo di joueur nga da nga yëngu ci wàllu euh, football euh, tey ji ki naan la jàppale euh, moom moo di ci di waajuru Cheikhou Kouyaté tey ji tamit ban message tamit ngay lancé jëmale ko tamit ci en tant que Cheikhou tamit nga nekk tamit joueur nekk tamit frère am. ah moom ah Cheikhou moom pour xaaruma ko sax moom mais doon doon nañ ci waxtaan quoi moom nañ ko wax ne allah kaddu yi lii moo xam lii la ko waa nitu kaddu la xam naa ne dina xa dafa tamit incha allah. sa kaddu gu mujj. ah di leen jaajëfal yéen di leen nuyu parce que fi ngeen jógee tamit sori na trop ñëw fii nii kon maa sant di leen ziar yi ñëpp